La grande finale Oscar des talents 2019 au Stadium Marius le samedi 23 novembre à partir de 15h sous le thème jeunesse et citoyenneté qui va gagner le trophée de Madame Yuma, directrice de la diversité et du développement de la francophonie sous le patronat de son excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, de la première dame Madame Mariam faisal du ministre de la santé Abdoulaye Doussa. Euh, je suis un nouveau bachelier. membre Robotech ESP di mën a créer yenn projet yu bëri en robotique surtout en technologie ak euh, ay euh, genre voiture intelligent yu ma jot a concepté yoo xam ne day nekk sous forme de drone mais ba tey xaw na am différence parce que bii day nekk comme sous forme de caméra surveillance yoo xam ne day daw mën na nekk si biir kër comme mën na dox si côté sécurité comme ambulance yi ni euh, sapeur yi mën na ko utiliser pour en cas de yenn accident yi buñ bëggee xam ba xam am na ay nit yu nek ci yenn milieu yo xamni ñom amuñu fa waaw ma ngi bokku ci Oscar des talents bo xamni mo ngi am fi ci Sénégal wa Saint TV diko tek diko di euh ma ngi ci plus précisément ci catégorie création scientifique nga xamni heure bi ñu toll nii ñu ngi ci finale yi moom la ñuy waajal baax sama téway fi en ce moment euh nous sommes au nombre de 3 mën naa ne presque man maa représenté Kër Massar et environ en même temps représenté Dakar parce que man kese maa si nekk Dakar. final bi le 23 la samedi 23 incha allah au cercle Maris Ndiaye à partir de 15h. Euh, fi may commencé d' abord mooy xawoon na métti trop si début bi parce que li ma doon dem yëpp dama doon dem man kese ak samay propre moyen di dem di dem di raam di raam ba egg final te jàpp naa ni final bi nekkatul sama final mon nga parce que final waa Kër Massa yëpp la zone beeg ak waa Dakar surtout mën naa ne waa Dakar ñëpp surtout waa Kër Massa parce que fii laa dëkk Euh, su ma sañoon nag final bi ñun ñëppay ànd dem jëli ji ko incha allah parce que ñun ñëpp su ma ko jëlee tamit waa Kër Masar ñoo ko jël jeune Kër Masar ñoo moom euh, trophée bi. pour ce faire maa ngi woo euh, képp koo xam ni doomu Kër Masar nga wala nga dëkk fii si Kër Masar et environ nga xam ni war nga jàpp ni war nga see mën a ñëw jàpp ñoo ngi lay ñaan nga ñëw jàpp si ñoo ngi si gën a woot di si woo tamit président Abdourahmane Fadil Diallo di si woo président Amar Top si woo monsieur le maire. Ousmane eh, Diouf eh, di ci maire euh, Pape Ibrahima eh, Demba le maire euh, Ousmane Cissé di ci aussi euh, président Cheikh Mamadou Diop M euh, DKM La grande finale Oscar des talents 2019 au Stade Marius le samedi 23 novembre à partir de 15h sous le thème jeunesse et citoyenneté qui va gagner le trophée de Madame Yuma, directrice de la diversité et du développement de la francophonie sous le patronat de son excellence monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, de la première dame Madame Mariam Faye du ministre de la Santé Abdoulaye Doussa,